woote bi tey je pense que euh, waa UNAPAS euh, suñu mbokk yi nga xamante ni ñoo yëngu ci wàllum napp euh, ñu ngi fi toog ñoom ñoo wooteeb ndaje boo xamante ni ci marche lay doon mais marche bi li koy waral li tax cislaay gi mooy accord de pes yi licence de pêche yi chômage de jeunes ci la bokk émigration clandestine aussi ci la bokk maanaam en gros en général ñoom buñ ci duggee dinañ ko développer loolu moo waral nag suñu daje bi tey ñu koy defee fii

suma mbokk mi léegi wax na ko maam Thiam xam nga ñun dañoo doon ay nappkat fu ñu demee ba defar gaal jënd ko 30 millions wala 40 millions dara desul lu dul ñu koy jàpp ay nit di ko yóbbu Espagne pour ñuy mbëkki kon jafe-jafe am na nañu ko nangu parce que bi ñuy defar gaal yi defuñu ko woon pour muy dem Espagne di yóbbu ay nit nit ñi di ci dee nit ñi di ci egg defaruñu woon ay gaal pour loolu dañ ko defoon pour napp ci suñu géej géej googu ñuy nappe nag géeju Sénégal la ñun ñoo ko moom doon ay sénégalais. ci jamono yi ñu toll nag ñu ci dund ay jafe-jafe yu metti dara waralu ko lu dul ay licence de pêche yoo xam ne ñu ngi koy jox ay chinois ay turc ak union européenne ak ay grec ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ñu ngi leen koy jox ci réew mi xeex boobu nag dama jàpp ni lu xeexu inaa INAPAS rek même kii lekk jën dafa soxla am jën parce que jën dafa am lu muy def ci yaramu doomu aadama kon bu ñu demee ba am jafe-jafe gis jën ci réew mii ñu nekk muy réewum Sénégal ñu nappkat yi dem ba am jafe-jafe dem nappi ut jën indil ko jox ko consommateur yi kon dafay jaaru ñu taxaw wax li xew li xew nag du dara lu dul dañoo nekk ci réew mi bokk ci réew mi doon ay kenn gis bu génn ni day xuloo wala day def ay mars bu ñu demee nag boo def dafa fekk ni ñun amatuñu sax lu ñu dundee te dëkk Sénégal moo waral xale yi di dem moo waral xale yi di di jéngu sax man dama wax ni sax dañuy jiyaat dañuy gàddaay pour génn réew mi ndax nit koo xam ne dañ ni la boo duggee ci géej gi fa nga jëm man ngaa man ngaa dund man ngaa dee nga forcé ni da ngay dem pour dee kon veut dire que ni yow bëggatoo dara ci réew mi nga nekk muy jafe-jafe boo xam ne mool yi dañu koy dund moo waral ci immigration clandestine ndestin bi mool yëpp dem bañ naan quatre cent et quelques personnes dee nañ ci te li ci ëpp nag ci inigration clandestine bii ñu fi ñu toll nii tembe ay nappkat rek ñoo gàddaay di génn réew keneen gàddaayal du génn réew mi nappkat yi la ak marchand ambulant yi nga xam ni da jël nañ seeni place ak chauffeuru taxi yi nga xam ni mënatuñu am client bu ñu yeb ak ñeneen ak ñeneen ñoo àndandoo gàddaay di génn réew mi loolu nag bi mu ñu dalee ñun nappkat yi ñu gis ni investir nañ ay gaal ay 30 millions 40 millions bëgg a liggéey mënatuñoo liggéey suñu géej fu ñu wëlbatiku bato mbëkkuñu ci géej gi jën bi ñuy napp mu nekkoon jay wëyëng yaboy ak euh, merlu ak beneen xeetu jën coof kocc ruur jariñ ak baase kibaaro xeetu jën yooyu yëpp bato yi ñu ngi koy xëccoog ñun da ngay gis bato boo xam ne day jógee Gambie wala mu jóge Casamance soob mbaal di ko diri ba egg si ndakaaru doog ko yëkkati tant que mbaal mi feesul ak jën du ko yëkkati te ñoo ñu ëpp ay ka ñoo ñu ëpp matériel bu ñuy nappe bato boo xam ne day jógee Saint-Louis soob mbaalam di ko diri ba ndakaaru mu fees mu doog ko yëkkati pour mën a dem pour mën a yab jënam ñun nag bi ñu ko xoolee ba ci yàgg ñu xam ni bato yi ñoo nekk ci biir géeju Ndakaaru ak biir géeju Casamance ak biir géeju Salmadi biir géeju Ndar taxaw fa jën wu war a wàcc si pour ñun pêcheurs artisanaux yi nga xam ne ñoo dëkk ci réew mi moom réew mi ut ay gaal mënatuñu gis jën woo parce que ñoom ñoo ñu ëpp capacité tey bato bi mu ngi guddee 40 mètres lay guddee am largeur 8 mètres wala 7 mètres di yàpp ay 600 tonnes 700 tonnes jën ñun. mënuñu mënuñu mënuñu amuñu yooyu yooyu moyen amuñu yooyu moyen ñàkk moyen boobu nag moo tax ñoom ñu taxaw jën woow bu bu masaan a jóge ci biir géej immigré wàcc si ñun dañ koy jàpp te ku ne xam na ni këru nappkat yi ci tefes gi am na ci kër yoo xam ni bu géej amul jën duñu lekk duñu naan amuñu fonctionnaire ci littoral bi de Cap Skirring à Saint-Louis ci 718 kilomètres yi loolu nag impacté nañu impact boo xam ni à l'heure actuelle yuuxu rek moo ñu dese dara desewuñu parce que dundatuñu lekkatuñu naanatuñu nappkat yaa ngi ser seen gaal ci géej gi amatuñu essence bu ñu yóbbu géej nappkat yi ñu ngi ser seen gaal ci géej gi ma ñu ngi teg seeni gaal ci kaw amuñu lu luñ ko peinture lu ñu ko defare ku sa mbaal dagg mënatoo ko defar ku ci sa caas amatoo caas yoo nappee mënatoo ko jënd man amoo loo ko jënde machine gaal mi ngi jar Sénégal Gambie gi mu ngi fiy jar euh, deux millions neuf cent mille fii mu ngi fi jar trois millions huit cent et quelques boobu différence lan la essence su gaal Sénégal la gën a chéré que ci région ci sous sous région bi ñu ñu dendeel kon jafe-jafe am na ci nappkat yi jafe-jafe boobu nag moo tax ñun nappkat yëpp ci Sénégal INAPAS porté combat bi jiitu ci kanam ni man may les pêcheurs en activité woo ñëpp ci seen ginnaaw ni leen kaay leen ñu àndandoo dem wax lii nga xam ni moo xew ci réew mi pour ñu utal ñu ci saafara defuñu ko ngir dara dañ ko def ngir. réew mi fi lañ bokk fi la ñuy dunde fi lañ dëkk ba pare ñu bëgg a jël tubaab yi jox leen suñu alal tubaab yooyu nag ñun ñu ngi daw di dem ñoom ñu ngi daw di ñëw loolu mooy suñu problème à l'heure actuelle mën nañ xam ni géej gi boo ci duggee foo daw foo wëlbatiku ay bato ñoo ci ne ndax loolu dina dem kenam beneen bi ci topp mooy ñu ngi zélé suñuy numéro gaal ñun ni dootuñu ñu jox numéro ba pare continuer di signer ay licence de pêche ak tubaab yi te joxuñu ko sénégalais yi tubaab yi sénégalais yi tamit am na sénégalais yoo xam ni dañuy dem fekk benn entreprise boo xam ne amoo sax boo taxawlee sa entreprise amoo cinq cent mille francs bëgg ni da ngay jënd bato cinq milliards parce que bato loolu lay jar léegi nag ci biir loolu ay sénégalais ñoo dem di gàddu bato yi di leen ñëw di leen def seen tur di leen sénégaliser di ñu gën a rey réew mi nag ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun nappkat yi nag jafe-jafe yuy dund fi ñu toll nii tembe metti na ci ñun méttiwaay boo xam ne ku ko yéen ñiy jënd jën sax xam ngeen Parce que tay ko amone salaire 100 000 francs don si jënd jënd 15 000 francs daw reen ya ngi jënd jënd 25 000 francs te bu déwéné 50 000 ngay jënd jënd sa salaire dootu la jariñ dara benen bi ci top yaboy bi gënon na yomb ñu naan sax des fois dañ koy tour caisse yaboy mi ci fukki junni wala juroom ñaari junni bo démé marché di jënd yaboy di jënd jënd il faut ñu soor ñi nga xamni amuñu doole parce que tay ku dem di jënd jënd ben yaboy 200 francs nga koy jënd te yaboy bobu juroomi dërëm la doon jar wala fukki dërëm wala 100 100 francs léegi nag yi ndax ñun bëgguñu lekk coof ndax ñun bëgguñu lekk ruur wala jareñ ndax dañu nekk ci réew mi tubaab yi di jëw jël suñu jën dem lekki ko ñun bàyyi ñu ñun sénégalais yi nga xam ni ñoo ni woon ñun suñu plat national ceebu jën la ñun toggatuñu ceebu jën parce que poisson congelé la ñuy lekk non seulement loolu euh, yaboy la yaboy bi ñu daan safale moom la ñu ndawaloo léegi kon am nañ jafe-jafe jafe-jafe boobu nag lañ bëgg ñu nguuru Sénégal xam ko ut nu ñu waxtaane ba résoudre problème bi suñu jën ñëwaat suñu géej suñuy nappkat mën a jotaat jën yi di ko dundee dunde INAPAS nag loolu rek mooy mission amul beneen mission mission bi mu am mooy na nappkat am alal liggéey am alal mën a defaraat matérielu géejam mën a dimbali askanam mën a dimbali nappkat yi te li ci gën a graaw mooy Sénégal fi ñu toll nii tembe ñun les pêcheurs li ñu gàddu ci emploi ku ñu koy wax ci Sénégal mënoo ko gëm

dafay ñëw ànd ak mairie yeeg ñëpp ñoo ciy am xaalis te kenn financé wu ko ñun ñoo ko financé suñu bopp kon ñun ñoo ñu ko financé suñu bopp soxlawuñu dara lu dul ñu dimbali ñu suñu géej dee jën dellu si ci ñu bàyyi tubaab yi ñuy jaay suñu géej jaay nañ suñu géej ba mu jeex tàkk man li ma jàpp sax mooy fi tollu toll nii est-ce que du ñu natt ndox mi sax di ko def ay bidon di ko jaay. boo manifestation bi ñu ngi ciy woo sénégalais yëpp xuloowuñu xeexuñu yàquñu suñu alalu réew dañu woote rek pour ñun sénégalais yëpp ñu daje place de l'Obélisque di ñaan ñi nga xam ne ñooy jox auto autorisation ñu jox ñu autorisation parce que suñu droit la ñu ngi koy doog a demander ci Sénégal bi Sénégal amee ba léegi nappkat mi ngi fi doog a demander pour ñu may ko mu dem taxaw wax li ko naqari dellu ci biir këram xeexuñu xulowuñu ñu dara loo xam ne violence dañu woote rek pour ñu xam ne ñun am na lu ñu naqari te yàgg nañ ko jàmbat depuis ministre yi fi jaar yëpp ñu ngi koy jàmbat te amul saafara dafa tombeek ministre bii fi ne nag mu gën a pire Légui nak ñuy woté président de la république pour ñu jox ñu autorisation de marche ñu dem place de l'obélisque wo askan bi yëpp ina passe moko organiser mais miñ ci wo askanu Sénégal yëpp muy journaliste bi amna na ci wo nañ ko fa wo fa kuy lek jën ak kumu mëna doon wo nañ la fofu parce que buñu amul jën du ngeen lek jën kon yeen ñëpp jóg leen ñu dem place de l'obélisque wax li ñu nakari buñu waxé li ñu nakari nak ba paré ñu déllu wat suñu kër xol ba xam ñom dinañ ko saafara am déet

rek ya ma gëna xam. man xawma ci kaw lañ jugee man dama jéggi gisaay rek gis leen ba paré fo tourner Dakar instant ngay gis. mais loolu ëpp na Dakar instant ci kaw ca kanam rek. wa ah Dakar instant dal gis na sen caméra bi ni mu mi ni xam naa ne bëri na doole trop ba mënuma xol bu baax damay pis pis di pàcc pàccal ni wa Dakar instant maa ngi dama leen suivre ci page sen page YouTube dal wa Dakar instant moom bo xolé ñoom sen tour rek day wane lool ndax chaque instant c'est le bonheur. monsieur le maire loo wax ci Dakar instant. waaw c'est une première mais ni ma Dakar instant dafay prouver ne Dakar instant ci kanam la jëm inshallah. allah. ñu koy suivre Dakar instant lan leen laay wax na gaay dem abonné loolu bëgg si actualité ñew leen ci Dakar instant. C'est ligue rafet na trop macha allah. Mbacke loo wax ci wa Dakar instant. waaw Dakar instant mom ñom dañu wax xew ndax bañ na ko chaque jour bu ma bu information yi may soxla yëpp ñoo ma koy jox muy dug ci YouTube bi da ko rek. looy wax ci Dakar instant. mais jàmm. looy wax ci Dakar instant. Dakar instant dafi nekkal Baye Fall boo yeewoo moom laay seetaan. boo tëddee. moom laay seetaan. booy Snap. Instagram. Twitter. Dakar instant. Dakar tout instant.